mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyoo ñi ñuy seetaan ñëpp di doore suñu wax fi ñëpp doore rek mooy bés bi bésu tiis la ci Sénégal mooy ñaar fukki at ci gannaaw lu mat ñetti téeméer ci ay bakkan rot na ci loo xam ne ci suñu cosaan ak suñu aada dañuy faral di wax ni ndogalu yàlla la waaye ñëpp xam ni càgganteek nit moo gën a sabab loolu at wu ne nag mu am ñu ko taxawee nen bu mel ni at wu ne rek day gën a wàññeeku te loolu mooy andi fàtte mooy andi ñu dem ba fàtte loo xam ne lu ëpp fàtte la waaye célébration yi baax na commémoration baax na waaye am na lu ko gën mooy ñu fexe ba xam ku def ak li tax mu def ku ci def naka sudul noonu war a mën a uyu ci kanamu yoon ndax fi léegi loolu amuñu culture boobu ci suñu réew lu nu mel du fi jóge bis bu ne nga dégg ab gaal gu suux amoon na daawaati jéeg fële ci Toubacouta Bitinti ay bakkan yu bëri rot ci bis bu nga dee nga dégg accident circulation boo xam ne lu bari ci bakkan dina ci te boo demee ba ci biir négligence humaine rek moo ko waral depuis ki bàyyi oto bu daw te warul daw ndax warul mun a am visite technique ba ki ko arrêté ci yoon bi gis ni ay papier matul mu bàyyi ko mu dem ba ci chauffeur bu ko dawal ba keneen ak keneen tant que amuñu culture boobu ni dañuy xool responsabilité yi li may wax nag du rek ci mbirum lu jëm ci transport waaye dafa jëm ci bépp fànn mooy ñun sénégalais yi war nañoo xoolaat suñu bopp ci li ñuy doxalee parce que bëri na lu ñuy dal ci ay immeuble yu daanu ay bakkan yu bëri rot te ñëpp gisoon nañ ni immeuble bi ci fële foofu la jëm ñu bàyyee ko noonu moo tax commémoration bi nu mu baax baax baax am na lu ko gën mooy nañu fexe ba xam ku def chaine bi yëpp nag daa di leen jaarale fi leen war a jaarale kon ñi seen bakkan rot te dee nañu ci àdduna Cheikh Tidiane ñu fàttali na ko musul am accident bu toll noonu ci dégâts humains yal na yàlla yërëm te jéggal leen yal na yàlla xareen àjjana donte sax jàpp nañ ni li ñu jàng ci diine mooy yenn xeetu faatu yi ku ko ku ko faatu dañoo jàpp ni shahid nga mooy martyr nga cër bi islam jox martyr mooy mën nañ laa suul te duñ la sang sax cër boobu nga am waaye nag lu métti la ci famille lañu war a waxtaane nag ci ay poñ dinaa ko doore ci assemblée nationale defe naa ñi ci war a waxoon nañ ci yenn ci li am biir assemblée nationale waaye man li ma bëgg a wax rek ci turu conférence des leaders yëpp mooy ndaw yi ñu teewal ñun Yewwi Askan Wi ci assemblée nationale lañu fa def lépp ànd nañ ceeg ñoom à trois cent pour cent ma baamuwaat ko parce que dañoo ne ci réew mu xaw a doy waar doonoon leçon yu bari lool critique bi yomb nag dem nañ sax ba naan lii de xam nañ ni leader yi sant ñu leen ko ma wax ko fii nag ñun leader yi ñoo leen sant taxawaay boobu bés ba jokkoo nañu ñun suivre nañu li xew ci suba ba guddi te ànd nañ ci mu leer nañ te saa su demaatee noonu lañ leen sant moom mooy nañu amaat taxawaay boobu bu yeboo nag Macky sal créé caserne de gendarmerie ci biir hémicycle bi lan moo waral loolu nag mooy mandat bi leen sénégalais yi jox mooy na assemblée soppiku mooy na assemblée bi nga xam ne mooy voté loi na doon moom ki njëkk di appliquer loi assemblée bi nga xam ne mooy wote loi moom na jiitu ci appliquer loi assemblée ñaar ñoo ko sëkk constitution ak règlement intérieur de l'assemblée constitution dafa wax ni lii mooy cëru assemblée nationale lii mooy cëru député bi ñii lañu war a doxalee biir assemblée nationale réglement intérieur assemblée nationale ñëw mottali ko ne assemblée nationale lenn ñu ci war a doxal ñi la war a doxe ñoom nag bi ñu nekkee fii ba léegi yàlla dafa natt woon ñuy am majorité écrasante ba nga xam ne dañuy ñëw teg seen oom ci réglement intérieur bi di appliquer lu leen neex ku wax ñu ne la minorité ngeen noppi leen loolu moo fi musa am ñun ñii xeex nañu assemblée nationale te dañ koy assume parce que gis nga Sénégal nañu bàyyi yenn wax yi xeex ci boppam du mooy problème bi lan moo andi xeex bi ak lan moo tax nit di xeex yonent yàllaa ko yónni kenn gënu koo bëgg jàmm waaye bu demee ba génne jaasi xeex am na tax ñuy toog fii naan kenn warul xeex jàmm jàmm jàmm ñoom ñoo gën yonent dañoo gën yonent mi nga xam ne xeex na te su xeexuloon tey islam du egg si fii kon nañu bàyyi yenn wax yi ay xale bu ñu tongowee da ngay jàpp seet ku tooñ nga teelu xam ne ko yaa tooñ boo ko mënul da nga noppi ci wax ji waaye non déception ñun di taxuloon yóbbu leen assemblée bu dee ñoom dañoo ñëw assemblée nationale bëgg imposer lu dul yoon lan la député euh, opposition war a def sol seen costume cravate croiser les bras ne suñu yoon ne aussi ëllëg bu ñu ñëwee bëgg a voter benn loi pour ci góor jigéen wala dañuy wala dañuy wote loi pour yokk euh, njëgu ceeb wala njëgu diwlin wala leneen ak leneen opposition bi ne ñii la war a demee ñoom ñu ne dañuy teggi loi daaj koy def par force lan la opposition bi war a def li ñu def barki démb la war a defaat moo tax ma ne leen ngàcce gaalaama siggil ngeen ñu parce que man nekk naa assemblée cinq ans minorité lañ fa woon dikkee xam ne li may wax bis bu ne ñu jalgati yoon te mënoo ci dara loolu nag moo jeex takk nag ndax nag ñoo leen ëpp doole assemblée de majorité sax amatuñu ko ndax quatre-vingt-troisième bi nee na léegi non inscrit la ëpp ñu ñu lim gënuñ nekk ndaw ëpp ñu kàttan duñu ñàkk fulla nag ba ñu jaay ñu leen li ci biir assemblée loolu jeex na assemblée li tax nag li ñu def am solo lan moo ci tegu la ca la tepp ci ñaari fan yooyu yëpp dañoo dellu si négocier lépp dañ koo waxtaane lépp dañ koo waxtaane waxtaane nañu commission yi nañ ko war a tërale kan mooy jël ban nangam bi ñu ñëwee lan la ñu waxoon ci commission yi ñoom ñooy tànn lu leen neex opposition doog a tànn gars yi du fi amee du fi amee dañ koy waxtaan ba déggoo assemblée boo xam ne ëppoo fa doole gestion paritaire la war a doon opposition bi li mu wax rek mooy nañu toog waxtaanee mbir yi fii kenn bëggu fi lu yàqal Sénégal kenn du fi def loo xam ne da nga koy bloqué pour bloquer rek pour le plaisir déedéet lu ñu andi lu baax ñu wote ko lu ñu andi lu baaxul ñu ne leen du fi amee loolu mooy assemblée nationale. loolu la Sénégalais yi bëggoon ci ñun moo tax ñu jox ñu quatre-vingts députés de l'opposition deux non trois non inscrits muy quatre-vingt-trois ñoom ñoom quatre-vingt-deux kon est-ce que yo géelu Macky ne foofu mel ni moom moom Sénégal bis bu amatee ñu jaarat noonu foofu ma wax ko léegi mu leer bu yóbboo nag na préparer andi caserne gendarmerie biir assemblée nationale may dànkaafu Macky Sall nag parce que man su may wax ak Macky Sall constitutionnel bi mu am Ismaïla Madior Fall commencé ko toggal naan ko da ngay suspendre assemblée nationale article 52 de la constitution loolu lay rumbanaat naat mu toll nii waxaat na ko benn télévision tugal président Tunisie bi foofu télévision boobu la ko demoon waxi dellu si daal di suspendre toutes les institutions à Tunisie Macky Sall barki dem bi mu demee Nations Unies tere boobu la dem waxaat ko dina xam ni Sénégal du Tunisie Sénégalais yi ñoo bëggoon assemblée nationale wuyoo assemblée nationale moo tax ñu ne dañuy dooleel opposition moom nee na ses pouvoirs ne dépendent pas de l'assemblée les pouvoirs de l'assemblée ne dépendent pas de lui loolu mooy yoon suñu nee séparation et équilibre de pouvoirs mooy moom ci boppam ay pouvoir dépendre lu ci moom moom waroon na am kersa di wax ci assemblée parce que mi ngi violer séparation des pouvoirs mais comme c'est un homme volontairement violent dans tout ce qu'il fait moom jàpp na ni Sénégal da koo donn ci ay waajuram xam na ñun nii ñëpp ay ay ay assujettis am moo tax mu jàpp ni moom mën na suspendre assemblée nationale bi daal di am tous les pouvoirs di gouverner par ordonnance loolu la gëm Macky Ismaïla Madior Fall ne mu teg fee nga xam ne ba bu mu dugg nag moo ko koy dugal loolu la ko gëmloo fi mu toll nii waaye ba ñu yegg ca waaye teel naa teel nañ ko dànqaafu te wax nañoo ak Sénégal yi moom mënul fecc li Sénégalais yi fas Sénégalais yi ñoo bëggoon assemblée mel nii ñoo bëggoon opposition bi am fa doole ba lu fay ñëw dinañ ko mën a càmbar te noonu lañ koy càmbaree nag te fan yi di ñëw assemblée nationale dina neex de li muy tiit li ko tiital ba muy bax baxi loolu dina am assemblée nationale dina doon un lieu de débat boo xam ne mbir dootul ñëw rek député nelaw ba ñu ba ñu ne heure vote mu jog ne wote la déedéet lu ñu andi dinañ ko càmbar parce que loolu la askan wi namm ci ñun waaye duñu yem ci loolu ñun dañuy yóbbu dinañu proposer ay loi teg ko sur la table loi yu dëgër nag loi yu leer nañ yoo xam ne Sénégal da ko soxla dinañu déposer pour ñu taxawal ay commission d'enquête parlementaire ci luubal gi ne ci réew mi loolu moo ko tiital waa ji nelawatul lekkatul boo xoolee kanam bi sax danga ko yërëm dinañu càmbar bi budget yi nga xam ne moom la war a teg ci table assemblée nationale ba mu leen li lii mooy intérêt Sénégal lu ko may ñu delloo ko ko en seconde lecture loolu tax muy annoncer la couleur naan si on bloque moi je prendre mes dispositions yooyu ay waxu daanu saret la kon ñu ngi rafetlu suñu taxawaayu député bu ñu déglu kenn ci ay donneurs de leçon assemblée nationale règlement intérieur la kan moo mun a ne Benno Bokk Yaakaar violewul règlement intérieur ni mu falee président amul ku ko ñemee wax ci Sénégal ba pare ñu bëgg ne gars nañu toog jàpp seen njàmbur croiser les loolu jeex na ci Sénégal wax nañu gouvernement bu bees 2019 dama taxaw ci assemblée nationale vidéo yaa ngi fii xale yaa ngi koy génnewaat ba léegi ma ne Sénégalais yi njumte am na de ndax jox Macky Sall deuxième mandat musiba la ci Sénégal ma ne woon Sénégalais nag juróom at yi di ñëw di ngeen souffrir du yéene de yàlla xam na ni yéenewu ma lool Sénégal yërmande rek lañu ñu fasal Sénégal ci suñu xol bi mais xam réalité bi moo taxoon ma ne Sénégalais di ngeen souffrir waaw moom def na ñeenti at la lu ko tegu. Séné est-ce que am na sénégalais bu mun a weddi ni Sénégal yaa ngi souffrir fi mu toll nii ana mbënd bi ana njëgu dund gi ana njëgu loyer bi ana liggéeyu ndaw ñi ana paj mi ana njàng mi lan moo dox ci Sénégal nañ ma wax benn secteur boo xam ne mu ngi dox Sénégal kan moo ma ko mën a génneel amut dara doxul kon su ma taxawaatee fii ñu ne waa ji at ak genn wàlla ko dese may leen attaque genn wàll googu Sénégal dinañu souffrir encore ngeen war ma gëm parce que dama ko teg fu leer nee na gouvernement la teg gouvernement de combat moom dafa yéex a yeew combat bi commencé na bu yàgg moom daan nañ ko ba sëlum ko muy doog a yeewu naan gouvernement de combat combat bi doorul tey combat bi dafa door bi mu commencé ay tappale mois de mars ñu duma ko sur le terrain mu ñëwaat élection locale li génn ci urne yi ñu duma ko luy ville bu mag mu ñàkk ko ñëw élection législative ñu duma ko bu gën a métteeti te bu ñu demee 2024 ñu faxas ko mu dem muy doog a yeewu naan gouvernement de combat moom kay moo ñuy tuddee boppam le lion qui dort et se réveille jamais waaye gouvernement de combat par rapport à quoi et par rapport à qui est-ce que combat bi pour régler problème sénégalais yi la déedéet dama ne xool leen gouvernement bi kan moo ko jiite Amadou Ba Amadou Ba yor na ministère de l'économie et des finances pendant sept ans tey économie Sénégal xalangu na ba ci suuf ana entreprise bu dox ana secteur économique bu dox exonération fiscale yu ñu jox entreprise étrangère yi du yoon wax naa ko assemblée nationale xaalis réew mi ñu sàcc suuf si ñuy dagg aéroport ak feneen ak feneen lépp sous le magistère de Amadou Ba la coupé pendant sept ans mënoo taxawal économie ñu ne la un an et demi jox nañ la premier ministre tey problème Sénégal jeex Sénégal nag boo fi amee say milliards yaa xam foo ko jëlee ndax man de inspecteur des impôts la aw mooy million waaye boo fi amee say milliards 2014 déjà neewoon nañu 800 millions la def ci image am budget image léegi nag xam naa ay milliards lay doon boo fi amee say milliards lu leen ñu bindal la ko. l'homme de la situation nangam nangam mu mel ni waa ji barki démb rek nekkul woon ministère <laughs> ministre de l'économie et te dara doxul ci réew mi moo wax ko Sénégalais yi man yéen laay waxal Sénégalais lu toll ni tarfata ay du changé waaye day gën a garaaw xam ngeen ndax la Macky Sall dafa lajj depuis le début xam nga fu mu juumee mosul xam lan mooy priorité Sénégal lu neex tubaab yi la doon xool. moo tax tubaab bi ne ko defal ay infrastructure parce que suñuy entreprise soo defee infrastructure ca la ñuy mën a am marché sa dëkk tabaxal ay stade tabaxal ay arène tabaxal ay autoroute loolu lépp baax na de waaye lan mooy priorité Sénégal ak lan lañ ci def ana mbayu Sénégal mbay dañu ne woon 2017 la ñuy am autosuffisance en riz tey li ñu doon importer ci ceeb lu ko raw la ñuy importer ana mbayu Sénégal mbay réew mu mënul téye mbayam réew moom mënul fexe ba développé waaye bu àdduna bi tisoolee yow nga soj parce que tey suy dem ba Ukraine di yelwaan ay blé fa suñu suuf sii nga xam ne yàlla jox nañu ko kenn xamul nu mu toll lan lañ ci def ba tey suñu mbay mënul dundal Sénégal ana industrie Sénégal zéro tissu industriel réew mu amul industrie pour transformer da ngay bay mënoo développer mënoo créer emploi mënoo am résilience mooy su amee problème ci àdduna bi nga mën koo dëkku ana loolu yooyu mooy priorité Sénégal ana napp gi jaay na géej gi yëpp ana càmm gi zéro nga foog ne di nga développé réew ci anam googu ñu naan sa addi ñu premier ministre dàq nañ premier ministre sénégalais ku gëm ni loolu mooy soppi mooy tax ndaw ñi am liggéey moo tax pañ mi baax moo tax euh, euh, euh, économie bi développé nax nga sa bopp dara du dox ñeneen ñi ci nekk ministre yëpp nekkuñu foon ministre suñu scandale pétrole ci ministre yooyu la jaar suñu scandale Prodac ci ministère yi la jaar suñu scandale bi ñuy bëgg a jaay suufu suufu Batrin beeg ñoom seen ci ministère yi la jaar suñ ci taxawul woon tapé sur la table tey jaay nañ ko ñi am seetlu yëpp jàpp gis nañ ni dénominateur commun bi ñu am mooy kan moo dàq saaga Ousmane Sonko ci ñoom léegi ku bëgg a doon ministre wala nga am ay milliards saagal Ousmane Sonko Macky fi mu fi mu fi mu yóbbu Sénégal fi mu wàcce Sénégal dafa sax indécent ci Macky Sall rek la Sénégal eggee fi waxu waaso waxu xeet waxu région saaga subaak ngoon suñu waxee ñu ne xale yi saaga ci ci Facebook bi déedéet xale yi dañuy développer ay anticorps par rapport ak ay mag yu leen di saaga tous les jours man de kenn musuma dégg ma saaga kenn gisuma gis gi ma ànd ak saaga kat Macky Sall ngay gis ku saaga su ngoon jot mu woo ko pare jox ko xaalis photo ak moom jabaram toog ñu photo foog nga ni Senghor dina doon wàcce république à ce niveau foog nga ni Abdou Diouf ni doon wàcce république à ce niveau foog nga ni Abdoulaye Wade ni doon wàcce république à ce niveau tey saagakat yi ñooy ñooy doxantu biir palais nit ñi suñu bëggee wax nañu wax loolu moo gën waaye suñu jógee waaw goney passé fi nangam nangam goney passé fi anticorps la mooy ko yaram bu ko feebar duggee dafa am loo xam da koy développé ci ci biiram pour mën a xeex feebar boobu waaye goney passé fi jóguñu saaga kenn bu ne opposition jóguñu saaga kenn dañuy tontu ñi nga xam ne ci loolu la ñu dëkk suba ngoon moo tax bu dee politique tam waaye ñoom addition de zéro la ñuy jël ñëpp ne dañ leen def ministre c'est pas eux qui vont faire des combats politiques kan moo ci gagné fi mu dëkk ci ñaari élection yi passé ñoom ñëpp dañ leen duma ay liste remplaçant ñoo leen di duma ban pois politique la ñu am nañ ma wax jël leen kenn kenn ministre yeeg premier ministre yëpp. dóor nañ leen élection locale duma leen élection législative kon du ci administrativement du ci politiquement du fenn foo mun a nattee du ci prise en charge des préoccupations des Sénégalais du fenn foo mun a nattee ne ñi gouvernement de combat la mu des nag kon ban combat combat ak opposition c'est pas un un escadron de bras et de canards boiteux qui va combattre l'opposition kenn ci ñoom ga ñëw ci bureau de vote du ñu ñoo ñuy moo wax leen nag vrai gouvernement de combat Macky Sall xam ngeen lan la général Moussa Fall la commissaire yàgg la une partie de la justice la et une partie de la presse la lii mooy gouvernement de combat Macky Sall la ah. du général Moussa Fall ak yàgg gëmloo ko ni jënd na lu doy ci ngànnaay ci grenade lacrymogène ak leneen ak leneen ba ku yëngatuñu duma la moo tax lu xew ci réew mi ñu génnee char de combat fu ne pour dox ci ci ci ci xelu set ah, xale yi ba dootuñu ñeme mais dañoo xamul lu xew laajal Ben Ali laajal Moubarak laajal président Soudan gis nga un peuple qui di non gisuma gendarmerie wala police bu koy téye yooyu ay waxu caaxaan la ñaareel bi. mooy une partie de la justice sénégalaise est-ce que tey xoolal classe politique bi su ñu nee dem élection 2024 nee nañu Khalifa Sall du doon candidat nee nañ Karim Wade du doon candidat léegi ñu ngi ruma daal naan Barthélémy Dias du doon candidat Déthié mi am na benn sursis man moom ma teel leen ko wax gannaaw yàlla amul luy dund lu ma mën a tere ne candidat loolu moom du lu ñuy wax waaye lépp fan la jaar. mu ngi jaar ci justice ci ay tappale yu kenn xamul soo joxee ñoo magistrat jóg bel bel bel bel bel ñun kenn mënuñoo xokkatal kenn mënuñoo intimider gis nga réew mi lu fi jara wax yëpp dinañ ko wax parce que dans une démocratie tout se discute amul sens interdit bu justice defee lu dul yoon ñu wax ko tey la la justice et le premier bras de Macky Sall moom mooy instrument pour la liquidation politique des adversaires de Macky Sall justice waaye nag lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru de nañu tey parce que ñun ñëpp sénégalais lañu te kenn ëppalewul kenn ci dëkk bi la presse maa ngi félicité Barthélémy Dias li mu wax keroog dëgg la une bonne partie de la presse bokk problème la ci Sénégal barki yàlla booy xool presse Sénégal nga xool presse Mali wala presse Burkina da ngay rus c'est devenu un problème la ko andi nag yéen journalistes yi taxul ñeen ñu wax de yéen moom ñoo bokk coono ñooy naanandoo suñu lacrymogène bu ñuy tourné ñooy fanaanandoo ci àll bi seen patron yi de mbëkk fa fële ñu jox leen ay milliards te duñ leen si jox ñoom la ñuy waxal ay dóorkat ay mbëkkkat nguur gu ñëw ñu naxanteeg moom laxas si moom ñooñu ñoo tax ñuy wax dafa am jamono nit ñi dañoo gëmoon ni le la la quatrième le quatrième pouvoir c'est la presse da ko daan dégg même daan les livres de livre de droit constitutionnel dañ ko doon wax moo tax ñëpp dawoon dem uti organe de presse ne su ma ko amee am naa moins de presse de pression am na waykat bu ne woon euh, nu ko tuddee ga ëppal asamaan euh, jant leer ma jànnoog satellite satellite woon ma feneen feneen dinaa liggéey ba am lu ma jëndee satellite nangam nangam boobu ngént bu yàgg la woon su ma juumul kàddu yi la ñu jàpp ni ku am sa groupe de presse soxloo parti politique te yaay ëpp doole parti politique yi soxloo nekk président la république te yaay ëpp doole président de la république bu ko defee mu doon moyen de pression et de chantage sur les gens et ça marche avec les petits présidents yu amul benn personne xaalis bu ne nga joxe ko nañu bind lu baax ci man ak bu ñu nañu bind lu bon ci ñële mais loolu dafa jeex tàkk la jeex dañoo nekk jamono joo xam ne presse sax léegi mu dépassé parce que yéen ñi ñëpp journalistes yi woo na ku nekk am nga sa benn blog sa benn page Facebook booy def sa benn site internet ku yaakaar ni yor nga groupe de presse loo neex nga wax ci nit ñi te li gën a garaaw mooy kenn doo tudd yow mun nga taxaw wax la neex ci nit ñi ku la tudd nga mel ni mbott bu wànn bu wànn caméra loolu au nom de quoi au nom de quoi invité nit ci plateau mel ni ku ku lu ne nga jàkk ko ko mu dóor la benn nga ngay bëgg a xatraay au nom de quoi cette dictature ne marchera pas en tout cas moi ça ne marchera pas avec moi je respecte chacun et j'exige le même respect de chacun lan la ñu fi bindalul ci ay ngeen wax ngeen baal ma ci wax ji may ay fenu neen l'observateur en pleine campagne Sonko a reçu cent quatre-vingt-quinze millions de tuloy ooy est-ce que am na lu gën a garaaw loolu kan moo ci wax ngeen foog ne loolu dina continuer noonu dans ce pays parce que yor naa sama organe de presse rek lu ma neex ma bind ci nit doo xool ni père de famille la doo xool ni dafa am njaboot ci politique ay milliers de personnes topp ko bañuñu ku def nga am preuve ni def na nga wax mais sos suba ngoon guddeeg bëccëg sénégalais dañuy toog di seetaan seen télé nit di wax ñu naan kii moo mën a wax lu dul noonu parce que nit ñi léegi dañoo yeewu moo tax li Barthélemy def ànd naa ci man réew mii il va falloir crever l'abcès te am na loo xam dootuñu ko nangu lii nag mooy gouvernement de combat Macky Sall gouvernement combat Macky Sall c'est pas ces canards boiteux là de ñii politiquement ku ci dem terrain bi ne damay quartier laa bëgg soo demee ñu duma la kan moo ci gagné wax leen ma am na ñu demoon élection locale fii Dakar defe naa est-ce que am nañu sax 5000 voix am na ñu demoon yeneen dëkk yi fu nekk fan la ñu gagné bañ naan ñii mën nañu def un gouvernement de combat contre qui donc ñu feddali ni lii lépp ànd nañ ci la ca des nag wax na kaaw Barthélemy Diaz man askan wi laay waxal askan wi moo war a protéger les mandats qu'il donne puisque institution yi mënatuñ koo def assemblée nationale li mu fi nekkee depuis des années gis nañ ko man bi ñuy lewee sama immunité parlementaire ñëpp xam nañu ni jaarul yoon ñëpp xam nañ ko un député qui est en cours en session loi li mu wax dafa leer mënatuñ ko poursuivre lu dul assemblée nationale levé na immunité li xew ni acte de poursuite la parce que poursuite yi mi ngi commencé avec réquisitoire procureur mi ngi jeex quand le jugement sera définitif loolu mooy poursuite donc en appel acte de poursuite la preuve le le procureur est venu defaat réquisition daal di demander cinq ans loolu du acte de poursuite kon lan moo tax assemblée nationale ne ci cell moom di seetaan pour que un député en cours de session ñu mun koo euh, condamner sans pour autant que l'assemblée nationale n'ait moo tax ma ne affaire bi dootul affaire assemblée nationale donte suñuy député ñu déposer li ñu war a déposer semaine bi avocat yi dinañ def euh, pourvoi en cassation mais dootul affaire assemblée nationale. la ma waxoon ba ma ca tollee man mois de février daaw dama leen ne lii du mbirum justice mbirum jaay doole la ak mbirum politique donc politiquement lañ koy répondre askan bi moo war a protéger ses mandats parce que dañoo jël Barthélemy ne kii ab criminel la. askan wi leen d'accord criminel boobu moo ñu doy pour jiite la capitale du Sénégal ñu jox ko mandat askan wi dellu siwaat criminel boobu moo ñu doy pour ñu jox ko mandat mu dem assemblée nationale kon askan wi weddi na loolu loolu doy na ci weddi moo tax askan wi moo war a protéger ses mandats parce que fu ñu bëgg a jëm mooy foqati soo mandat de député ak xool ndax mën nañu foqati soo mandat de de ville de Dakar loolu duñ ko nangu la may daanelee daal pour bañ a guddal yow askan wi laay waxal rawatina yéen ndaw ñi rawatina yéen ndaw ñi bu leen kenn ëlëmal ak wax yu amul solo ay def na gouvernement andi na premier ministre dàq na premier ministre dugg na fii génn na fii gouvernement bi dama cee cof rek dinañ ci wax bu jotee parce que xam nañ leen de dinañ ci wax bu jotee te nag combat bi mu bëgg dina am ma nga commencé assemblée nationale. li mu ragal dina am ministre yëpp ñoo ngi leen di xaar assemblée nationale benn benn xam nga ñun ay benn benn lañ fa newoon Déthié Sonko Aïda Mbodj te daan daan nañ leen duma dumuy mit bii paa nag dina saf-saf assemblée nationale projet de loi bu ñëw loi de finance bi yéen ñëpp di ngeen gis ren plénière yi nu muy demee dina neex de loolu nag moo tere nelaw Macky Sall waaye li may wax ndawu Sénégal lii ñuy def nii yëpp cosmétique la ak bugg a taal ay contre-feu pour réeral leen xam ngeen lan laa bëgg ngeen def focus li ma bëgg ngeen jàpp ko moo tax man débat troisième mandat duma ci dugg xam ngeen li ma bëgg ngeen jàpp ko Macky Sall 2024 février 2024 il sera plus président du Sénégal na fi jóge abal ñu réew mi na am ngor gu doy nag ndax askan wi def desew ko dara nous sommes 17 millions de sénégalais ñaata ñoo ci mës a nekk président ñu xëy jox ko président defu ci dara lu nit mën a wax mu dellu si ne joxaat leen ma ñu jox ko constitution bi ne kenn mënul tegle ñaari mandat nul ne peut faire deux mandats constitutifs bu gorewul nag na ko askan wi woon naka lañuy def ak ku gore bi mooy ci nii wala ci nële Macky Sall 2 février 2024 dina jóge ci réew mun na am na ñu koy xalamal nekk ci plateau yi di ko waxal lu ko neex ñu nag ñoom xamante nañu te su dul woon alkaati gu dox suñu diggante ba ci keroog assemblée nationale bu dul woon alkaati gu dox suñu diggante ñoom xam nañ du demee nii noonu la demee nag ci lépp lu ñuy def xam nañ ñi ñoo leen ëpp ci réew mi ñoo leen ëpp ndaw yu ànd ak ñun ñoo leen ëpp jëpp ci ñu ànd ak ñun ci diaspora bi amul fenn fooy natt foo xam ne tey Macky ëpp ëppale nañ ci réew mi lu dul nag yaakaar ci Moussa Fall yàgg ak justice loolu nag dina jeex ci réew mi ñu ngi leen gërëm di leen sant Je vais résumer brièvement en français. Je disais simplement que pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, je tiens